fi nga xam ne mooy baasu communauté Mouride ci turu conseil municipal Touba ci turu conseil bi yëpp waaye ci turu sama kilifa googu nekk ci sa wet di Serigne Sidi Mbacke Abdou Lahad mi nga xam ne moo waral ma taxaw fii tey di wax ci turu taalibe yëpp yi nga xam ne taalibe Seexul Xadim lañu ci turu xalifa général de Mouride. ci kalaamal si am Mbacké Abdou Khadir porte parole yoonu murit président wax ji du gudd lama sama jàmbaar ja waxoon rek sama sëriñ sëriñ Abdou Lahad Mbacké laa lay jox ñaari xise moo ne woon képp ku liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Touba dana la fay ku ko defal loo man mu defal la loo munul ku ko defal loo munul mu defal la lu la jom loolu nag te yow dey liggéeyal nga Serigne Touba ci dëkkam bii di Touba ci njabootu Serigne Touba ci njabootu yoonu murid yépp ci njabootu xalif général Serigne Mountakha Bachir yàlla na fi yàgg te wér kon nag gannaaw da ngaa liggéeyal Serigne Touba jëf ju ñépp gis te Serigne Abdou Lahad waxoon ne soo ma defalee lu ñépp gis ma sant la ba ñépp dégg ko. te defal nga ko lu ñëpp gis ci dëkkam bii kon taalibe yëpp ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla fay yal na nga am ngërëmal sëñ Tuubaa te ku am ngërëmal sëñ Tuubaa dootu ñàkk dara kon président bu yeboo sam xel dal ndax sama baay Moussa Ka waxoon na fii ne li tax bale balees wat carte ya ama jay sa si ama bal si dafa liggéeyaloon Bamba ama jaysa si te liggéeyal nga Serigne Touba infrastructure la Touba bii nga xam ne teraanga fariw ko kaw jenn teraangay àdduna fariw ko kaw te liggéey ku liggéeyal Sëñ Touba sam xel dal kon boye boo nga xam ne 2000 liggéeyal nga Sëñ Touba 2018 waaye 2019 jël nga carte yi am nga ndam premier tour ngay gagné ci barke Sëñ Touba murid yëpp dañ la ko ñaanal ñëpp taxaw nañ fas yéene le premier tour 24 février président Macky Sall le premier tour lay jàll na nga sam xel dal na nga sant yàlla ndax ku liggéeyal sëñ Touba sëñ Touba dana la fay te liggéeyal nga sëñ Touba bugguma guddal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Merci. À présent, nous allons écouter le discours de monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine.